auzu billahi min asheytaani rajim wa inni auzuha bika wa zuriyataha min taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi ak mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi afuwaay mën a nekk dee nga dinu seetaan noo lay siyaare di ñaan yàlla na la yàlla defal jàmm dee nga ndax noo ngi dellusiwaat dee nga seen xarit di seen wëlër di Cheikh Ousseynou Sy Naaru borom Touba di ànd ak yéen ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm du doy fii ci Prestige Thiès TV yi nga di wax ne nag noo ngi siyaaree bu baax a baax dégg nga sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaan gudd fan ak wér di siyaare bu baax sëñ Cheikh Jëmb Fall ak mboolem taalibe yi di siyaare yi dégg nga ah, ci gàmmu gi sëñ Moussa Fall. dégg nga di siyaare itamit dégg nga sëñ Cheikh Soda Fall mu sëñ Modou Aminta Fall sëñ Mbacke Fall tamit mu sëñ Modou Moussa Fall di siyaare tamit sëñ Cheikh Ndigal Fall dégg maam mu Cheikh Fall Baye Góor waaye noo ngi siyaare dégg maam sëñ Cheikh Ngunda Fall dégg nga mu sëñ Saliou Fall ak mbooleem dégg maam Cheikh yëpp dégg nga di leen siyaare di siyaare tamit Serigne Saliou Touré di ko ñaan gudd fan ak wér waaye noo ngi siyaare dégg maam ki nga xam ne kii dégg nga ah moom mooy naama dégg maam bu Cheikh al Islam. di siyaare di nga mbooleem rakkam yi ñoom ñëpp waaye noo ngi siyaare Cheikh Ahmad tiijaan Seck ca Canaba dégg nga di siyaare tamit dégg nga sëñ Mbay Si Mansuur ca Tiwaawan ak mboolem waa Tiwaawan yëpp dégg nga waaye noo ngi siyaare dégg maam ah ki nga xam ne mooy waa kër dégg maam ah mboolem laayeen yi dégg nga sëñ Cheikh Thiaw Laay noo ngi koy siyaare di siyaare dégg maam waa kër Baay Ñas bàyyiwunu kenn kër diina yëpp noo ngi leen di siyaare di siyaare Alaaji mu ñu njëgën itamit di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye di wax ne kenn ku ci nekk ñoo ngi lay ndokkeel waaye noo ngi siyaare tamit dégg maam Cheikh Bekkaay mu Njaasaan dégg nga nga xam ne moo fi toog xalifa di ñaan dégg maam yàlla nag fi yàlla yàggal wéral ko ak mbooleem dégg maam waa Njaasaan gépp di wax na nag noo ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci gàmm gi nga xam ne dégg nga nañu waaye noo ngi jëm ci lan mooy ngénte li te loolu dégg nga maam bu ñu ko waxee xel yépp ñoo ngi dem ci fan ci Njaasaan waaw di wax ne ki nga xam ne mooy Cheikh dégg nga maam Mouhamed Bou Kounta Alaaji maam Bou Kounta dégg nga ah ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla dool leeram dégg ki nga xam ne mooy Mouhamed doomam toog fi dégg nga ak Alaaji maam ak maam bu dégg ak bu bekkaay ñoom ñëpp dégg nga di ay rakkam ñoo ngi leen ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan di siyaare bu baax nag waa kër dégg maam si Sidi Yaxya bàyyi wunu dégg maam kenn nag waa kër Cheikh Sidi Lamine ñëpp noo leen di siyaare di wax ne yàlla nañ ko gàmmoog jàmm ak salaam bi jaay Seydi Bousso Al Moussoud gis ngeen ah gàmmu Tiwaawan gi tubaarkalla ah oustaz eh, Ousmane Mbaye dégg nga demal nañ ci dégg nga ñoom ñëpp sëñ Babacar dégg nga moom tamit dégg nga njëgën ñoom tamit kër ma alaaj njëgën maanaam ustaas yi kenn ku ne sëñ ma sàmba eh, kebe ñoom ñëpp dégg nga waa prestige barkalla gàmmu gi kenn ku ne taxaw nga ci dégg taxawaay bu rafet tuubaay tamit dégg noonu lañ ko gàmmoo man tamit dégg nga yàlla def na fii lañ ko gàmmoo i tamit waaye noonu ko gàmmoo ak kan waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu dégg nga mooy Saad bu Njaay ci parcelle dégg nga ak Massiré ak seen waa daayira eh, eh, Alimat Sadia dégg nga ñoom Modou Gueye ñoom ñëpp dégg nga bàyyiwuñu kenn waa kër dégg nga maam maam Birame Diouf ñoom ñëpp dégg maam keroog ci kër Cheikh Saad bu Ndiaye dégg maam gàmm gi fa lañ ko defee dégg nga maam waaye moom dañ ko ngontal ànd ko sérif bi dégg maam bi nga xam ne Mouhamadou Lamine la tudd dégg maam doom Mouhamadul Aqib dégg nga moom moo teewal dégg ma jóge Mbuur di wax ne tamit ah kër maa Alaaji ca Daabaay ki nga xam ne kii dégg nga maam mooy Alaaji dégg nga nga xam ne moom yàlla def na moom tamit bëgg rasulullah sallallahu alayhi ba nga xam ne bis bi bu jotee da koy màggal foofu taaw mbay moo koy jàng dégg nga xam ne ah, xaadim mbóoj di waxtaan ñun ñii dégg nga ñu di ci barkeelu ñoom xarit cuun ak mbooleem dégg nga maam waa cuuneen googu yëpp dégg bàyyi laa njaay ak ñëpp daal ñoo ngi leen sant ak Pape Badara ñëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla guddal seen fan gàmm ngi ci barkeel ak neex na lool ki nga xam ne kii dégg maam ah mooy borom jul di ñu demaat encore kër Sëñ Fall tamit dégg nga dafay àggale gàmm gi waaye ñuy ñaan dégg nga maam yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla wér a dégg nga kàttanal yàlla def itam dégg nga nu ñëwaat dégg ci ki nga xam ne kii mooy ah, Pape Fall mi nga xam ne mooy Serigne Toutou si dégg ànd ko mboolem njaboot yépp di gàmmul màggal Seydina Muhammad saa sallam dégg nga màggal googu mu màggal dégg moom Seydina Muhammad kenn ku ne xam ne Rasulullaay kenn moom dégg nga ah waaw ah, ni mu waxee rek ñu màggale ko ñoom màggal nañ ko ci sunna dénga waaye mu ànd kook mboole ay xaritam ñoom mortaalaak dégg nga ànd ko ñoom sëriñ dégg nga ak ñoom Taw Mbay ñoo doon jàng dégg nga muy démb rek ah ñun ñi ñoo doon def waxtaan wi waaye bernde yi dara manqué wut lépp dégg maam ba pare ànd ko sunna ñoom Seynabou si ñoom Seydou si ak ay soxnaam ñoom ñëpp kenn desut waaye dégg nga ma soxna Ndeye Diouf tamit ñëwoon na ñoom mère Fall yónnee ñoom ñëpp dégg nga ah ñoom maam jaara waa kër ga dama ne kenn ci ñoom desut ba ci ki néegéey sax dégg nga ñëwoon na ak may dégg maam ah moom Habib Faye maam ñëpp ñëwoon nañu kon nag bis boobu tamit ñoo ngi ñaan yàlla nañu ko yàlla defal ñu di ko taxawee at mu nekk Paa Fall ñu ko ci ñaanal gudd fat ak wér moom ak tutubaa dégg nga ak njabootam yi maam Cheikh ñoom ñëpp ak Amina ak ma Awa dégg Touba ñëw ànd ak sëñ Fallou Mbacké ñoom ñëpp dégg maam teew nañu kenn desut ñu wax ne nag noo ngi sant yàlla na yàlla dégg maam may nu dégg maam ba at mu koy defee bu ne dégg yàlla gën koo yokk di siyaare bu baax nag ki nga xam ne mooy Pape Doumbouya di ko ñaanal yal na ko yàlla may wér ak kattan dégg nga ndax. kenn ku ne xam na ne dénga nga doomu Thiès la taxawaay bi mu taxaw ci Thiès dégg nga ak prestige dégg nga nga xam ne Sénégal àddina si yëpp dégg nga réew mi yëpp dégg nga ah mu bëgg rek dimbali rawatina nag dégg nga fii nga xam ne mooy Thiès rawatina fii di Ngent dégg di caali dégg nga moom mu taxaw taxawaay boo xam ne bii lépp lu mu ci mën ci diine moo ngi koy def ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla yokk wërsëgam di sant bu baax a baax nag sama caméraman yi dégg nga maam ah ndax. ki nga xam ne mooy ah, euh, mooy Moussa Mbaye dégg nga moo ngi nii toog dégg nga ak rahmatullah dégg ànd ko Modou Aïssac dégg nga ki nga xam ne moom mooy sattir na njoon waaye noo ngi sant itamit dégg nga am ah mboolem waa prestige yëpp bàyyiwunu kenn dégg nga Guèye Taraangaak dégg nga rek ki nga xam ne mooy soxna aji binta sal momi tamit de nga non koy ñaanal binta samb yalla na yalla guddal fanam ak mbollem seyda yi fi nek yépp de nga di wax ne nak ah dañuy bëgg dugg ci lan moy waxtane ah gam gi ñu jëm ndax njaasan kenn ku ne xam na ne ah njaasan ah ñun suñu bokk lañu de nga njaasan gogu man cheikh selamine bu njaasan sama nijaay la sama yaay moy zainabu kunta ci neegi afaat kadu la da nek waaye dama wax na njaasaan day dégg nga dëkk la boo xam ne bii dëkk bu am baatin la dëkk la boo xam ne bii ñu ragal yàlla lañu ñu bëgg Seydina Muhammad saa sallam nu seen ñaani tamit dégg maam yàlla da koo nangu ndax ñu baax lañu dégg ñoo fa nekk kon ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne mooy xalifa yi fi jaar dégg ba dem yàlla na yàlla dool seen leer te taas ñu seen barke ki fi toog dégg ma yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na yàlla wéral ko kon li nga xam ne mooy li am rek mooy lan mooy dénga mooy sant yàlla nu sant yàlla ci kan mooy sant yàlla bi mu boolee dee maam ku tedd kii muy kan mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla def nu dee nga ñu bokk ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te rasulullahi sallallahu alayhi wa kenn du bokk rasulullahi bëgg ko rek doy na jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam ndax wax naa leen ba tàyyi ku sopp da ngay soppeeku dégg nga te jamono jii yàlla def na ci dégg maam ah wax dëgg yàlla kër diine yëpp noo ngi yëngu kër na yëpp. muy tiijaan xaadir laayeen salsali dabaxi wahabit ak ñaseen fi mu ne nii ay décembre sax dégg nga bu masaana jot janvier dégg nga bu masaana jot dégg ay décembre bu masaana jot nit ñi dañ ko daan préparé vingt maam 24 trente 31 décembre waaye léegi ñépp dégg maam boo xoolee ay jàng lañ koy def di tagg yonent bi sallallahu alayhi di ko waxtaane fexe dégg maam nunu mën a delluwaat dégg ci diina te loolu mooy sunu wàll nit ku nekk dégg maam dangaa war a dégg kul shay'in yarja ala asli lu si nekk daa war a delluwaat dégg maam ci cosaan ba du dëgg ñu sant nag bu baax a baax te jotal message boo xam ne bii itam ngeen xam ko muy sëñ Muntaxa Basiiru dégg nga ah mi nga xam ne moom sëñ Basiiru Mbàkke bisil basar mu basir bil basiri basir laa nasir kooku nga xam ne dara ñoru ko dégg maam lu dul bëgg xaadimu rasul dara ñor ko dégg nga du liggéeyal Xaadimu Rasuul dara ñor ko dul xam-xam dégg nga nga xam ne université bii nga xam ne moo koy defar addina si yëpp la ko defal jullit yëpp la ko defal dégg nga université bi nag ah mu ngi koy fara ubbi dégg nga le le le vingt quatre dégg nga ci rabil awal bii dégg nga muy tombeeg le cinq décembre dégg nga di ci woote ñëpp nag képp koo xam ne kii ab taalibe nga ak foo mën a ne. dégg maam ah ñoo ngi lay keroog àllarba boobu sàkku nañ dégg maam sa teewaay foofu dégg nga sëñ Basiiru dégg maam mu sëñ Abdou Xaadir jotal na kàddu gi waaye dañoo wax ne prestige tamit dana leen ko jotal ñu xam ne université boobu lépp luy xam-xam dañ ko fay jànge te pour jullit yépp la nag ndax sëñ bi ba mu jóg di liggéey liggéey bi moom xaadim rasul dégg nga képp kuy ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yaa ngi fi biir kon sëñ Muntaxa tamit lii nga xam ne mooy naalu Serigne Touba nga xam ne moom la bëgg dégg nga ah naal boobu dama lay wax ne ci la sëñ Modou Moustapha Fall euh, Moustapha Mbacké ah bëggoon dégg maam xam ne sëñ Touba ko bëgg dégg moom la sëñ Abdoulahat Mbacké moom la sëñ Falloog sëñ Abdoulahat dégg nga ba ci Soin bu Mbacké ba seen sëñ Baara ba ki nga xam ne ki dégg maam ah seen sëñ Muntaxa mii dégg nga yéene bi sëñ Touba bëggoon dégg maam moom la sëñ Muntaxa di mottali nii. dégg mu bëgg nak ko xam ki kii dégg maam ab talibé nga dégg 37 milliards dégg maam la wax ci université bi mom lañ ci def té 37 milliards yi man néna naa leen dégg maam da yéene nit ñi rek jamm kenn ku ne nga man ci def sa alal waye 37 milliards yi da leen leer ne mom bu ko neex man nako def té lu ci wo kenn waye bëgg dégg maam kenn ku ci ne dégg nga def ci sa ñak dégg nga ba xéewal gi dégg maam buy sotteeku nga mën caa am looloo tax mu def ko ndax sëñ Abdou Lahad Mbacke dégg maam ba muy wootee yokk jumaa ji laaj un milliard huit cent millions joxe genn wàll gi am na ku ñëw joxe deux milliards daane bu kenn tudd turam te kooku kan la mooy Serigne Saliou Mbacké borom gotak mbur a jàpp na xel comme jaag di doomu Xaadimu Rasuul dama ne jësig bu fàddee taxankat masama ña si dex ga kon dagam waa kër Serigne Touba ci boppam dégg maam ñooy ñiraasu dégg maam seen lépp ñu def ko ci waxantuma laa ñun ñii di xam ne taalibe yi suñu yaakaar mooy kan mooy Xaadimu Rasuul mooy suñu yaakaar tey mooy suñu yaakaar ëllëg ñun lu ñu déglu rek mooy ndigal kenn ku ci nekk foo mën a ne dégg nga loo mën taxaw dégg maam def ci ba sëñ bi xolam na sedd man de jàpp naa ne 37 milliards yi àllarba bii mu woote boo dana mat ndax taalibe yi dee maam lu nu am danañ ko joxe lu nu man danañ ko joxe te milliards kenn rek te sëñ Tuubaa yor na <coughs> sëñ Tuubaa yor na ñoo xam ne nii dégg nga tubaarkalla yàlla jox na leen kon maa ngi soññi dégg maam saam bopp di soññi mbooleem mbokki taalibe yi ak foo mën a ne dégg nga ak ab jullit boo xam ne bii xam nga ne dégg maam li xéewal la ndax ren jii gis ngeen safar gi jullit yépp a ko doon def ndax xam nañ ne dégg maam xéewal la te sëñ Tuubaa day fay te liggéey boobu dégg ndax def na ñemewu ma bor ndax dama am pay ku ma lebal kër loxo ma fay la guddi foo tëdd muy kar koo koy xaadim rasul kon nag dégg université bii laa wax ne lu ci waaye def ko te xitma la ndax xam-xam moo yor réew ci xam-xam fànn yépp nag te kenn ku ne xam na ne dégg nga ki nga xam ne mooy sëñ Muntaxa Basiru dégg nga dara nekkul ci xolam bi lu dul sëñ Touba ak liggéey sëñ Touba bëgg Seydina Muhammad salaa salaam dégg nga bëgg jullit yi ak jaam yi moo tax mu ne nekk leen ci rek nekk leen ci rek dana neex dana yàgg dégg nga ba àjjana rek nii la ko waxee. daal ne bu leen ci kenn jëlee bu leen kenn dégg maam sopp bu leen kenn yóbbu ci lenn nañu nekk ci loolu kon nañ nekk ci liggéey sëñ Touba sëñ Touba nag moo wax ne inna lazina saaro li xidmati lahumu duur wasal janna képp koo xam ne gii yëkkati nga dégg maam sa benn tànk nga seq ko dégg maam di ma ko liggéeyal ma defal la ko ci biir àjjana kenn wax ko ku dul bàyyi Cheikh Saliou Mbacke yemul ci loolu daf ne wax di hawaadi lasi daamoo fi xidmati wax am lu yàlla fajal aaj ñi nga xam ne sax ci di ma liggéeyal lu mu sàkku ni nga leen ko jox sëñ Tuubaa ko wax te ba liggéey liggéey bi ma ne tibbul tëbbul tegul cin tegul ko cin àndul ak kenn daf ne lubbi mu nawaraa bi nooy looy waxaat li xayr ulum yi koo koy xaadimu rasul kon mu wax ne kii ibadaat naa faaxat ibadaat xayr na gis nga koo xam ne kii dégg maam ah sa jaamu yàlla moo gën a kowe ndax jaamu yàlla bi gën a kowe mooy ki ragal yàlla di jaamu yàlla bëgg Seydina Muhammad du soxor du iñaan du boddee du nay ku mu mën a dimbil dimbil la dégg maam kooku moom mooy jaam kooku jaamu yàlla moo gën a kowe jaamu yàlla keneen dégg kon loolu moo tax mu wax na nag dégg ah kenn ku ci nekk ak foo mën a ne dégg nga mu nga ndax ab jullit yàlla bu la jëlé def la ab julit def la mbam xox def la fas def la bëy def la ginar way mu def la deg ma ngay doomu adama te gi deg yàlla wax wala qad karamna bani adam wa amalna fil barri wal bahri wa razaqna min at tayyibaat wa fadalna ala kasri ma khalaqna tafdilan yàlla teral doomu aadama ci jéer ji ak ci géej gi gënale ñu deg maam ñun war na noo fexe doon urus yaqut ak madian waaye buñ war noo def suñu bop përëm deg way waaye ab jullit boo xam ne nga nekk sa njaboot dégg maam julli sax dégg maam mënu ko xamul nu ñu jullee dégg mu nu ñu wutee alal rek la def waaye kenn ku nekk sa bise di ñëw billaay di nga jàkkaarloo yàlla ba def ne yàlla yow rek la bind dégg nga lu waaye am milliards yeeg loo mën a am ak lu mu mën a doon fii lay des barke Seydina Muhammad loo ci deful ci lu baax boo faatoo dégg maam ah loo def lu ci def safaan mu fekk la fa kon lu waaye man ci lu baax na ko def te xam ne nag ah gis maam Cheikh Fall dafa ne bisimilah jàmm bala ngaa tabax dangaa war a tëppax bala ngaa tabax dangaa war a fexe ba tëbax nooy tëxe tëppax lu dul ragal yàlla ak jaamu yàlla ak bëgg Seydina Muhammad ak jël sa alal di ko def ngir yàlla bu ëllëgee nga fekk ko fa wa maa tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah lépp lu jiital dégg nga ci yiw ci lu baax dégg nga yàlla bu ngeen dikkee fekk ko fa waaye nekk fii di dajale rek di tabax ay étage te yàlla wax na leen ko. yéen a ngi dajale loo xam du ngeen ko lekk ah yéen a ngi tabax tabax yoo xam ne dégg maam du ngeen ci dëkk sa kër li mu rëy rëy li fa bari ay néeg ak ni mu toll doo tëdd ci vingt cinq centimètres ci lay tëdd sa mbokkum jullit dëkk ak yow dégg maam feebar ah ordonnance juróom benn téeméer sax doo ko mën a dimbali mu mu dee nag nga dem jënd ko nag loolu mooy lat ah xanaa àddinaa tax yàlla taxut kii def te yalla tax de mam ah doy top de mam jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax sallallahu alaihi wasallam mom moy ki nga xamne ki de nga ah buy def du xol lenen day def rek te yalla tax de nga kon lolu bok na ci de nga ñun am nañu ño xamne ni de dégg ay reference lañu de nga ño xamne ni de mam dara ñoru len lu ragal yalla seen alal ndax ab talibé de nga moy ki nga xamne ki lay andal moy ki lay yóbbu ci yoonu yalla waaye du koo xam ne kii dégg maam da lay jël rek dégg maam di la loo am jox ko di daw guddeeg bëccëg dégg ba xëy faatu ñu teg la ci kursu bàmmeel mu leen kii sama taay bi la waaye tey de mënalu ma ko dara fii ndax fii daal dégg maam rek looy doyee sëriñ boobu sëriñ loo na sama taay bi yëpp nu faatu ndool ci benn saa ñu sanga ndooleen ci benn saa dugal leen si bàmmeel benn saa sama loxo ndeyjoor bii laa leen di teg dee maam yóbbu leen biir na man xaa xaadimu rasuul samay taalibe la wax mais taalibe mooy lan mooy ki sàkk lu baax ah kon su ko defee ah euh, noo ngi sant ñëpp ñoo gërëm ndax daanaka waxtu yi dee maam jeex na waaye di leen xamal ni tam ah euh, émission bii tamit li leen ko jox mooy oo caali dégg nga moo leen ko jox muy ndox moo xam ne mu sell. mu set mu baax te xam ne dégg maam fii la nekk usine bi fii la ne dégg nga di wax na dégg maam ñoo ngi koy woo képp koo xam ne kii kii nga di leen xamal nañ tamit dégg nga ah lii nga xam ne moom mooy bis boobu nga xam ne ci lañ jëm mooy prestige dégg nga ah le onze dégg nga ak le douze ak le treize dégg wax naa leen ko ci yoon bële dégg nga moom mooy anniversaire prestige ñoo ngi ci woo ñëpp. dégg nga bis al aju alxames bi ak ajoo bi dañ ci jox dégg maam ah wacc ay kamil de nga dem ci daara yi siara len luñ len mëna dimbal len dimbal len koku nak pap dumbu yalla noo koy ñaanal mok mbooleem ñu andal ak ñoom Omar fay ak ñom ñepp de nga ak xalé di ñaanal de maam soxna ulay ak mbooleem soxna yi ñom ñepp yalla na yalla guddal seen fan yalla na yalla wéré len yalla na yalla kat na len fi nak de maam ah moy Prestige Thiès TV de nga ngeen and ko seen xarit Cheikh Ousseynou sinar borom Touba di wax ne nag sama mbokk naari a ah ɗum sallamtu eleykum humoɓtuma foti ta arfu an hayel bleyde sa la bleydikum a waadi jasano molli nenim sul he no arfu an sin dorul he dorul he la lasaru tof a ah. latine mulano yalno yallah defal jamma salam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu